alaikum alaikum, xarit ñu émission en politique ñu dédal nak kenn tay ci euh, politique bi rek ci parti bu APR di euh, xam ci li politique ci mais également mu François Mohamedou François Gomis mais également ak euh, Gorosek. alors nous lay nga nuyu ak Info ak TV. Salam alaikum, nous ngi nuyu spectateurs yu Thiès Info YEP. ak euh, seen i auditeurs yi déglu seen euh, rajo bi di leen nuyu ñoom ñëpp di leen nuyu aussi yow Kaaw ak euh, di nuyu tamit seen PDG di Seylatir ak suñu caméraman bi Adama ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm. alors ala Ndiaga dañuy ñëw rek ci situation politique bu APR ak Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. euh, ci biir Thiès ginnaaw bi ñu génnee législative yi gis nañ ngeen amal fi ay ndaje yu bëri yi nga xamante ne ci wàllu ñaaxaat yenn responsable wala yenn leader ñu songaat terrain bi rek comme ni ñu ko defee woon laata ñu dugg ci législative yi li ni mel euh, Ndiaga Wade lan nga ci àddu. waaw situation politique bi à Thiès euh, ni ñu ko gisee mooy yokkute. parce que boo xoolee Thiès bi ñuy dem élection 2000 2001 ya 2000 2013 booba amuñu député ci mi ngi fété won ci ben benen camp ben bokk yaakaar moko gagné won mais avant ñuy ñëwaat ci élection yi ñu ne àndaloon mooy ku melni Idriss Seck jot na jénn demal ak yoonu boppam àndoog maa ngi ko taxaw Sénégal mais bi ñu demaatee élection encore Benno Bokk Yaakaar dafa gañewaat kon loolu day wane ni euh, effort yi ñu defoon ba gañee tamit kooku jënn gi mu jënn malgré ak xew lépp ñu jënn si ñun yëpp teewul gañewaat nañu plus de trente mille voix si biir département Thiès kon loolu wan na ni waa APR Benno Bokk Yaakaar def nañ liggéey bu am solo pour mën a gañewaat de député Thiès yi ak nag ñu nu investir Thiès aussi tamit ñu gën ci dugal seen loxo gën a dooleel ñaax nit ñi dem ci terrain bi tax na loolu tamit ñu gën a gañe tamit

deuxième législature bi yeen en tant que euh, parti nek ci bir APR mmh. euh, euh, en tant que membre APR mmh. nak ngeen gisee taxaway bi député waaw député yi man nan ni euh, bu fekkoon defuñu woon liggéey si 12e législative bi kon sénégalais yi duñu amaat si ñoom confiance ba votalaat leen ñu am plus de 120 députés si Benno Bokk Yaakaar si biir 120 députés yooyu APR am na si plus de 90 députés kon xam nga ni loolu lu am solo la Thiès aussi tamit ñu investiroon fi ku mel ne Abdou Mbow ak Siré ñu def liggéey bu am solo ba tax aussi tamit ñu mën a gañewaat ba mën a taxawaat kon suñ tëddali si kan la woon Siré Dia mu doon jàkkaarloog ku mel ne kan Idrissa Seck loolu boo boo nekkul Thiès li nga daan dégg mooy Siré Dia Idrissa Seck mais kooku Siré Dia est-ce que mën naa gagné Idrissa Seck mais bi ñu demee ba jeexal aussi tamit gis nañ ni Siré Dia gagné na Idrissa Seck mais si gagné boobu aussi tamit def na effort bu rëy. pour ñu mën a gagné Idrissa Seck fii si département Thiès. voilà mooy si euh, biir commune bi. boo xoolee département bi dañuy remercier ku mel ne Augustin Tine parce que Augustin def na liggéey bu am solo si biir département bi gis nga boo xoolee bi ñuy doog a gagné en 2012. boo 2013 benn maire rek moo fi nekkoon maire bu nekk après muy muy maire Fandène muy moom après def na liggéey bu am solo fexe ba département bi yépp nekk ci Benno Bokk Yaakaar loolu liggéeyam la liggéey boobu tax na dooleel nañ ñu ba tax ñu mën a gañe département bi lu baree bari mais boo xoolee ci biir commune bi commune bi en 2012 ñun ñu ngi fi amoon 7 pour cent Idrissa Seck kese kese rawee ñu plus de 47 000 voix ci biir commune bi ñuy def effort di liggéey di liggéey ba actuellement nii boo xoolee li ñu Idrissa Seck rawee ci biir commune bi c'est 8000 voix. kon loolu effort la boo xamante ni ñi nekk si biir commune bi dañoo def liggéey bu am solo ba mën a accéder loolu boole kook li waa département bi liggéey ñu mën a gagné des députés yooyu. liggéey boobu nag dañ ciy remercier suñu tëddali Siré Dia def na si liggéey bu am solo ànd kook ñi nekk si biir commune bi yépp parce que liggéey boobu ñun gis nañ ko fi niveau bi ñu nekk zone nord dugg si na fi jàppale suñ jigéen ñi ak jeunes yi. etc tout ba man ñu mëna accéder foofu kon ñong koy remercier bu baax ci liggéey bobu nga xamni def nañ ko ba tax ñu mëna accéder accès li leen di wax rek nañ gëna gor gorlu ci parti bi gëna japp xeyna fi ñu jëm mo gëna jafé parce que amna ñu wàññi ko ci ñun ku mel ni la Alassane Sall ci ñun la bokkon mais gis nga bi mu démé gaay yaakaaroon ni dina peser lourd dina mëna bouleverser affaire yi. waaw mais foofu sax ñàkk ñu bëri dañuy wax Thierno bi mu fi nekk en tant que coordonnateur communal yëf yi dafa doon yëngu mais bi mu demee rek affaire dafa am tek waaw loolu boo xoolee loolu wax boobu ñun ku ne war ngaa xam ne loolu amul parce que Thierno bi mu fi nekkee da doon yëngu doon na yëngu mais boo xoolee actuellement nii mus ñu woon gagné bi mu demee lan gagné. parce que bi mu fi nekkee parce que actuellement nii waxtaan wi am nit ñi di daje di mën a waxtaan bi fi Thierno nekkee amu fi woon te Thierno li mu doon liggéey lépp pour boppam la woon. parce que mosoon naa ko wax ni au que mu créer ay apéris ay Thierry si lay créer mais booba nit ñi nanguwun ma woon a déglu peut-être dañoo jàppoon ni dama doon waxante nii rek. parce que bi may joxee alerte ni président kii li muy sàkku bis bu sottee di ngeen taxaw nii. Euh, day jéem a nekk victime ëllëg ni sénégalais yi man ko jub laa ñi si des jubuñu loolu nag tey jii Euh, dem nañ ba àgg si am na ñu taxaw naan ma yow kii man la noo man yàgg naa def politique te nit ki am na yoon yoo xam ne bu ko xàllee rek dinaa xam ne kii pour boppam a tax mais xàll ko pour parti bi. loolu nag dem na ba leer ni tey jii ñëpp xam nañ ni Thierno leneen la bëgg mais du woon dundal APR léegi nag loolu yee nañ ci lu bëree bari mais vraiment demam wàññiwuñu dara ci à Thiès quoi parce que ñu bari ñu ngi doon wax naan avant élection yi naan ak ni demee et cetera gën a perte Thiès te gis nañ ni liñ fi am dafa yokk parce que si référendum yi rek xam ne Thierno mi ngi woon suñu biir booba Idrissa Seck rawe woon nañu mille voix si biir élection législative fekk mu dem Idrissa Seck rawe ñu mille voix kon demam amul benn impact bu nu mën a wax ni def na ko si ñun si biir cees fii quoi. alors ci beneen wàll bi njag am na limit kuréel gu bees gu nga xam ne judd na muy printemps républicain ñu bëgg rek wax ñu printemps républicain lan moo tax ngeen sos ko. waaw man ci printemps républicain mën naa ni si euh, ñi ko créé ci laa bokk mën naa ni sax si ñi ko njëkk taxawal ci laa parce que dañoo gis ni booba parti bi laaj na ñëw dajaloo toog waxtaan suñu biir pour mën a def ay activité mën a animer parti bi ñu gis ni loolu peut-être euh, il faut que ñu jóg ñoo xamante ni xëy na am na yenn crédibilité yi mën nañoo wax ak nit ñi looloo waraloon ñu taxawal kuréel googu xëy na fii ma toog nii duma mën a wax ni si turu kuréel googu laay wax waxuma ci parce que kuréel googu euh, ci laa bokk mais yabaluñ ma pour ma wax si seen tur mais tey li may wax en tant que di responsable APR bu Thiès Nord aussi sama turu bopp laay waxee mm. voilà mais printemps aussi tamit mu ngi dox doxam di dox dox normal daal <laughs> alors am na kenn tamit ku génn ci printemps républicain muy Ibou Diouf di responsable euh, adjoint bu COSER Thiès Ouest mhm. euh, def déclaration ne daal jàpp na ni euh, Abdou Mbow troisième vice président bu assemblée nationale moom daal war nañ ko jox mu mun a coordonner li nga xam ne mooy commune bi ndaxte jàpp na ni mën na ko doxal. non printemps waxul loolu. printemps waxul loolu parce que coordinateur communal bu Thiès bis buy am waa Thiès yi ñoom ñooy xool ki leen doy ñu jiital ko mais ça ne va pas dire que da ngay jaar ci ay nit ay xalé ñu juk fi taxaw wax naan diw la def comme coordinateur et cetera parti bi doxewul noonu voilà fi ku fi bëgg a nekk coordonnateur da ngay liggéey lutax wa parti bi wolu la taxaw jiital la mais lolu parti bi décidé wu ci ni ki lañ jox comme coordinateur kon kep ku juk taxaw wax ni diw moy coordinateur c'est turu bop nga waxe ta amna lo xamanteni nak euh war nañ ko wax parce que nit aussi tamit do jël sa ay problème personnel nga bëgg ko indi si biir parti bi loolu mooy jaxase parce que gis nga boo gisee yenn politiciens yi nit ñu bari respecté wuñ leen mooy lan tey ñu ngi lay gis si diw nga ne diw nangam nangam am nga problème ak moom tey nga jéem dem si keneen naan kii yooyu baaxul waaw Abdou Mbow si boppam war na xam ne ñooñu dañ koy nax Abdou Mbow si boppam war na xam ne ñooñu dañ koy nax gëmuñu ko. waaw maanaam kàddu ñëkk dafa am lu ko lamb. waaw dafa am lu ko lamb mais teguwul si dëgg te loolu du nekkagul defuñu ko. du lu nekk coordonnateur communal dañuy xam ni kii mat na coordonné commune bi ñun ñëpp ñu waxtaan ci ba juboo ñu ni kii moo ñu doy pour coordonné mais actuellement nii ñun taxaw gis nga bañ ko fi tegee Thierno Alassane Sall ay xëy un jour rek ni ñu président moo wax ni Thierno mooy coordonné commune bi ñun dañuy jug sa permanence ba la ñu defee suñu conférence de presse ni loolu d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg xam nga lan moo tax ñu waxoon loolu parce que gis nañ ni ni Thierno di doxalee booba du loo xamante ni ëllëg day dimbali parti bi looloo tax ñu taxaw bañ ko Ibou Diouf aussi tamit loolu mu wax moom la concerné mais concerné wu ñu concerné wul mën naa ne ñu gën a bari ci parti bi waaw. alors euh, tey li nga xamante ne moom mooy euh, taxawaay bi gis nañu euh, ci biir tey région de Thiès département yi bu ñu ko xoolee APR dafa mel ni am na fa ay jafe-jafe ci wàllu léthargie parce que gis nañu ay Serigne Saliou Samb ci mbuur def jël ay activité ak ñeneen mu mel ni rek am na benn teg. tekkaaral boo xam ne am na ci ginnaaw bi ñu génne législative yi ba léegi ñenn ñi dañ doon xaar sax ay pos euh, ba gisuñu ko ba tax euh, ñu bank seeni loxo yéen la ngeen di àddu ci loolu waaw xam nga poste aussi tamit euh, képp kuy politique ni la dama koy doon wax benn responsable mag politique ma ne ko képp ku ñëw ni dama lay jàppale politique te soxlawuma ci dara la topp ci ginnaaw waxam bu ko gëm ñi def politique yépp képp ku koy def bëgg nga ci dara bëgg nga aussi loo jàppale sa askan peut-être loolu moo tax ñu bari di def politique mais nag euh, dafa dañu war a dimbali président actuellement nii fi ñu toll ñëpp poste ñëpp mënuñu mu am poste mais war nañu xool aussi tamit ni fi ñu jëm 2019 enjeu yi dafa am solo te président bi muy gagné réew mi dafa am ñu mu àndaloon chaque jour mu wax ni ko dafa bokkoon Benno Bokk Yaakaar seq ko ak ay nawleem te président nee na man du ma wor kenn li may def mooy ñi ma àndaloon gañe ñooñu laa àndal gouverner te ginnaaw mbir mi yaatuwul yaatu goo xam ne peut-être ñëpp xaj nañ ci ku si nekk da ngay xam ni bis bu sa tuur jotee rek di nga am li nga war a am quoi mais loolu warul tax kenn. bàyyi say loxo taxaw ni dootuma liggéey pour parti bi voilà li ñuy woo aussi tamit responsable yi nekk fii tamit te nga xam ne yor nañu ay ndomba tànk nañu jàppale ñi nga xamante nii peut-être amaguñu ay ndomba tànk bu ko defee dina gën a tax liggéey bi gën a yomb pour ñu gën a mën a gagner en 2019 parce que actuellement nii aussi tamit 2019 soreetul mais tamit euh, gars yi bàyyi wuñ ko ak ñoom gaa ngi def liggéey bu am solo pour gagner leen opposition no non waxuma opposition man du ma wax ci opposition lu bari. ñun laa wax. waa Benno Bokk Yaakaar ak waa APR. ñu ngi def liggéey bu am solo pour gañewaat 2019. parce que tamit terrain bi waa opposition rek newuñu fi ah. ñooñu même au niveau national ñu ngi wax euh, coow li bëri na yaakaar nañu sax Macky Sall du am ndam euh, ndaxte parti politique yi bëri nañ te gis nañu ñu mel ni ñoom sa Seck ak li nga xamante rek moom mooy euh, waa PDS ak ñooñu ñu ngi taxaw di waaj a dem ci ay kuréel yoo xam ne pour daaneel Macky Sall est-ce que jàpp ngeen ne loolu dina sotti Macky daanu fii ci 2019. non loolu man gëm naa ne mënul nekk parce que président Macky Sall bilaam rek mën na ko fal en 2019 dama ni sénégalais yi. defuñu ñu ngi xool fi président jëlee woon réew mi ak actuellement fi mu bind parce que moom réew mi mu hérité dafa metti réew moo xam fekkoo fi courant fekkoo fi ndox fekkoo fi fekk fi ay prix yi daara yi di yokk et cetera ñu santé bi doy na waar école yooyu réew moomu la président doon bu da demee Dakar bu musaan taw nga dégg inondation yi Sénégal kenn du dégg réew moomu la président doon mais réew bi mu ñëwee ñu ngi fekk ñu daan subventionné Sénélec chaque année cent milliards par an léegi Senelec day am ay bénéfice Sénégal amul woon ndox ba may may Dakar parti bari Thiès gii li gën a bari si Thiès amul ndox barki démb lañu lancé KMS 3 prix de 270 milliards mu dugal ko si pour mu alimenter Thiès Louga Mbour ak benn parti Dakar loolu pour ñu am jafe-jafe yi daan am si ndox mu jeex carrément loolu mën na boo xoolee Ila Touba bii mu def li mu si def rek loolu doy na sëkk yaakaar naa ne bu si nit ñi jaaree dem dinañ xam ni kooku indi na ay. kii liggéey ne lu bari ku jaar dem pôle pôle urbain bu Diamniadio di nga gis ne foofu def na fa liggéey bu mag a mag a mag de boo fa demee di nga xool ni lii ku ko mën a liggéey si espace de trois ans quatre ans di nga xam ne loolu yombul waaw loolu nag bu ko defee ak nga dem si kaw bi PIDC bi da ngay gis dëkk yi amul woon courant nee Sénégal cent 1960 ba léegi plus de cent mille cinq mille sept cent mille cinq cent villages ñoo fi amoon électricité bi mu fi toogee 2012 ba léegi mille sept cent et quelques villages def na ko électrifié man sama dëkk maam man mii ci la bokk. kon loolu ak ay piste rural ak ay forage tout liggéey boobu mën na koo fal. na mais nag bu fekkee dañuy ñii di opposition bi dañuy wax pour sénégalais yi mere mag yi sénégalais yi merewuñu Macky waaw ñoom loom ñoom parce que nag loolu la ñu mën a parce que booy dem ci élection aussi da nga naan damay gagné mais ñoom ku si génn saa yu ñu génnee ñoom di dem ci àll bi dinañ gis liggéey président Macky Sall xam nga lan la ñuy wax seen biir ah kii moom wax dëgg yàlla neexut a gagné. parce que lii mu def ku jën teg sa bët loolu rek doy na sëkk. alors Ndiaga Idrissa tiitaru ci benn wàll wi fii ci Thiès. non Idrissa Seck mënuñu té mënuñu tiital parce que am na sama benn kii dama ko doon wax chaque jour ma ne koo xam ne chaque élection nga wàcc plus de trente mille voix kooku boo waxee ni yaa ngi jug gis nga olof da koy wax danaan kuy naaw say donc de rose fa nga jëm soriwut te gis nañ ni euh, Idrissa Seck comme li ma la ko waxee département yoo xam a mosu fa gagné mais dañ daan rawee Thiès plus de quarante sept mille voix. looloo tax mu daan gagné département bi mais commune bi nga xam ne moom moo yor maire yi yor tout bu demee ba mënatuñu fee rawee loolu di ñu fa rawee 8000 voix kon xam nga ne mi ngi wàññeeku. voilà kon xëy na yaakaaram peut-être mën na ko def feneen mais fu mu dugg ci àll bi bu demee dina fa fekk liggéeyu président Macky Sall jiitu ko fa loolu doy na sëkk. waaw alors euh, ci beneen walu wi euh, amna rek lu ñuy wax toujours ñuy wax ni président day talal loxo ñëpp pour ñu jappalé ko mu massifier euh, Benno Bokk yaakar ba tax na mouvement de soutien yi ci biir Sénégal bari nañ yeen ñi nga xamante yeen ay wa APR fi ci Thiès naka ngeen gisee sen taxaway waaw xam nga mouvement de soutien yi président day talal loxo ñëpp. parce que loolu moy waro garam wax ni ñëpp mais mouvement de soutien yi ci biir Thiès fi ma nek dekk ni bari na ay mouvement de soutien trop. mais am na mouvement de soutien yoo man gaw ma leen gaw ma leen franchement gaw ma leen parce que boo taxawee nii da ngay jàppale président ñu si bari ñii ay marché lañ soxla ñii leneen ak leneen lañu soxla moo tax gaa am na fi ay mouvement yu baax yu taxaw di jàppale président mais bari na fi mouvement yoo xamante nii li ñuy def da ngay xam ni seen bopp lañ ko yemale ko mm-hmm. waaw parce que mouvement boo xam ne taxaw président laay jàppale et cetera président moom ma woo moo wax lii waxu leen dara président li mu wax dama koy wax chaque jour ñun ñëpp ñoo koy dégg te am na si ñoo xam président sax xamu leen waaw kon nag li ñuy woone mooy ñun man bariwuma sax lu may wax si mouvement mais Thiès daal liggéey bi fi am. Mhm. te am solo ba tax ñu mën a gañe ba parti APR ñoo ko def ak Benno Bokk Yaakaar. ak Benno Bokk Yaakaar. waaw alors euh, très bien kii di Siré Dia taxawaayam naka ngeen koy gisee yéen. Siré Dia li taxawaayam Siré Dia moom dafa jàpp ni moom. moom moo war a tax Macky gagné xam na li tax président fal ko te mi ngi si loolu xam nga bu fekkee fii da ngay dem ba boo waxee boo tuddee si Dia ñun la yow da nga koy defaar da ngay def lii mais si Dia li muy liggéey président lay liggéeyal liggéey bu am solo la def si biir Thiès fii nii si élection yi ñu jóge parce que boo xoolee li fi nekk ci ay jeunes si waxuma la nekku fi pour naan sama quartier rek de commune Thiès yëpp li fi li mu fi jël ci ay jeunes wutal leen liggéey bari na te loolu fierte suñu fierté la ñun ñëpp kon kooku du ñu nangu kenn taxaw di ñu yàqal loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg Siré Dia nag continuer li mu doon def président gis na li muy def mi ngi koy jàppale biir Thiès bu wér président dañuy wax ne président sirédia mi ngi lay jàppale biir Thiès loo mën si dooleel ko na ko gën a dooleel parce que mi ngi lay jàppale mais ku lay jàppale lu mel noonu du ñu nangu ay xale yu am seen problème personnel ju jug taxaw di wax yéeg yi parce que ñoom ñu koo fi gis mu taxaw ñi ngay dégg ñuy taxaw di ngaañ Siré et cetera ñooñu la Siré njëkk a jë ñoom la Siré njëkk a dimbali ñoom la njëkk a dimbali ñooñu ñëpp boo leen laajee fii xam nga dañu dem euh, bi ñu demee bi ñu Augustin Tine recevoir dañu laaj wax dañ leen yéen pourtant yéen dégg naa yéen am na si ñoo xam ne Siré jàppale na leen. waaw coordonnateur départemental coordonnateur départemental. Mm-hmm. gars yi sëgg suuf naan waaw waaw am na si ñoo xam jàppale leen pourtant ñooñu mu jàppale ñooñu ñooy taxaw jénn tey di wax war baaxul. Mm-hmm. nit bu la defaree dara au moins na ko gërëm na ko sant mais ànd si Siré Dia du si Siré Dia ku baax la. kuy jàppale président la en tout cas man dama koy jàppale bu baax a baax a baax sama baat si kaw. alors tey kan nga jàpp ni bu ñu ko dénkee commune bi dina mun a doxal. waaw commune bi buñ ko dénkee ndax dina mën a doxal Siré Dia buñ ko ko dénkoon commune bi dina dox. maanaam yow Siré nga gis coordonnateur communal bu APR Thiès. mën na nekk coordonnateur communal. Siré mën na nekk sax lu raw loolu. très bien Ndiaga lan mooy doon say kàddu yu mujj émission bi jeex na. waaw ko samay kàddu yu mujj mooy di gërëm waa APR Thiès yëpp ak waa Benno Bokk Yaakaar di wax ni nañu gën a suude liggéey pour. yaakaar naa ñu gën a gis ay njëriñ yu gën a bari ci biir APR parce que tamit euh, am nañ ay adversaires ci biir dëkk bi suñu adversaires yooyu ñu ngi ñuy xool di xool ñu fan la ñu jëm ak yan tànk lañuy teg il faut que ñu teg ay tànk yu am solo gën a doolee euh, mobiliser waxaat ak nit ñi ñaaxaat leen wan leen li président liggéey. pour ñu gën a mën a jàppale président parce que am na benn kilifa bu mag dafa wax ne ma yéen parce que seen problème mooy li président liggéey moom ngeen mënta wane lu bëree bëri mais li président def si bourse familiale yeeg ak li mu liggéey. li mu def ci communication bi moo des. communication bi moo des. il faut que ñu communiquer wan Sénégalais yi li président liggéey waaw parce que président dafa jëf. waaw biir Thiès gii des fois da ngay dégg gars yi naan lan la fi président def man leen da ngaa bëgg ma lima la bu fi bëgg ma lima la li président def ñun Thiès lan dëkk li si mujj mooy Promoville bi gis nga 16 kilomètres tali yu mu def biir Thiès boo jénnee dem Tivaouane di nga romb université ISEP ak Camp Sapeur bu mu fay def université bi Thiès bii ñi fa daan dem avant président di ñëw xam nan na mel collecture rek moo fa nekkoon tey boo demee di nga gis ni mu mel Thiès dafa daan manque ndox boo demee di nga gis mu tef fi mu teg fi sotodoo boo xamante ni plus de quatre fois li fi daan nekk. waa Mbourkat boo demee laaj leen ñoom xam nañ ci dara. boo demee stade Lat Dior be ñun bokkoon na ci ñu doon wax naan dañ ko war a defar. mais ku fa dem tey gis nga ñun le programme bañ fa fekkoon ba fa président fekkoon ak ba mu fay def léegi c'est diamétralement opposé bokkul sax parce que liñ fa liñ fa fekkoon ñu def fa ay gazon synthétique la la gars waxoon ni moom lañ fay def actuellement nag gazon naturel la koy def pour ëllëg li daloon Sénégal bu ko dalaatoon ñaan ñu yàlla mu amaat stade Lat Dior bi équipe nationale na fa mën a fubal parce que dina respecter norme internationale yi norme yi FIFA soxla ko respecter ba nit ñi mën fa fubal arrosage bi gis nga ko moo gën a baax sax ba ñu dem stade ba ñu def stade de l'amitié kon président yéene na Thiès et puis lim ñu defal leneen li ci des boo xoolee Thiès ville carrefour la mu jëlal ñu autoroute bi ay AIBD indi ko biir biir Thiès mu jógewaat Thiès di départ jëm Touba kon Thiès ville carafour boobu du deñ te promettre na ne noonu la fiy jëlewaate autoroute bi yóbbu ko Tivaouane kon kooku jàppale na waa Thiès il faut ñu wax président li mu def biir Thiès ñu wax ko nit ñi pour ñu xam ko parce que président jàppale na Thiès bu baax a baax a baax pour ville Carrefour boobu bañ a deñ loolu daal la ñu amoon lu ñu ciy dolliwaat xëy na di remercier nit ñëpp. très bien mbokk xarit ñoom si naan ci Thiès Info TV ci émission homme politique ñu doon dalal Ndiaga Wade nekk kenn ci responsable politique APR ci Thiès Nord mais également membre euh, bi nga xam ne rek mooy kuréel kuréel bu bees boobu di printemps républicain euh, ñu jo amal jotaay bi nag ak rek ñi nga xam ne toujours mooy <clears throat> ay proches collaborateurs rek ñoo xam ne mu ngi ànd ak ñoom kenn ki mooy Gora Seck mais également ak Mouhamadou François Gomis di leen jox dig daja ci beneen numéro incha allah.